xamal ne kanam la jëm. AVC. maladie cardiovasculaire de façon générale bokk si biir. Mhm. kanam lañ jëm. Euh, kanam la jëm parce que yàlla dafa def nit ki lu muy gën di yàgg ci suuf problème cardiovasculaire di ñëw. Ah. sa yàggaay ci suuf dafa ànd ak problème cardiovasculaire di feeñ. c'est-à-dire que at say at suy yokk. Mhm. problème cardiovasculaire day feeñ. te parce que sidit dañuy soppeeku mais du loolu kese. Euh, leneen li tax dinaa ñëw si xale yi mais leneen li tax euh, aussi problème cardiovasculaire yi am mooy que nit ñi dañ soppi seen dox seen dundin dañuy tux dañuy dul tàggat yaram ba mu doy. Mm. dañuy am aussi yaram dañuy am jabet jabet dafa gën a yokk si si dëkk bi. tension dafa gën a yokk te souvent nit ñi dañuy gis ne waaw comme ni sénégalais di wax euh, bëgguma jël garabu tension parce que ma ko jëlee ngiru dund alors que loolu c'est une fausse idée euh, donc loolu day tax problème yi gën a di di gën a di teew euh, lekkin bi ni ñuy lekkee boo gisee ni fast food yi gën a bëri ni façon bi ñuy lekkee yooyu xorom si dibi waaw ah, comme ñi nga xam ne dañuy toog guddi dibi mbaa ah. sama kalaas ah, waaw am na nga xam ne nee nañ il faut ñu guddi gi da ngay teg sa coca teg sa dibi xam nga loolu moom c'est dangereux àndul wér gu yaram donc yooyu dafay dafa gën a tar si dëkk bi et donc loolu day tax problème cardiovasculaire kanam la jëm les enfants waaw tux bi aussi les enfants ñoom su amee souvent da fekk ne dafa am feebar boo xam ne ànd na ak ñoom Euh, am na feebar yoo xam ne ci engine lañ koy jëlee engine euh, boo xam ne fa fajuñu ko correctement day dem dal ci xol bi. Ah. su dalee ci xol bi mën na indi xol bi doxalin boo xam ne mën na fa créer lumbu deret boo xam ne mën na dem ci bëy bopp bi loolu mën na nekk wala boog doomu jàngoro bu laxasu si biir euh, xol bi. ci mm. bunt yi nekk ci xol bi. teggeeku dem ci biir euh, yuur bi indi ABC dara bi tamit mën na soppeeku ba xam ne xale bi mun na def ABC yooyu mun na tax xale yi di def ay ABC xale yu ndaw yi di def ABC comme mun na am si ay mbir. d'accord